Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasuulullaah laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasuulullaah laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasuulullaah laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasuulullaah laa ilaaha illallaah Muhammadu ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah rasulullah